et l'essentiel c'est important parce que nag secteur yi fi Sénégal dafa mel ni féppay métti foo laal day métti mm-hmm. la pêche l'agriculture mm-hmm. l'élevage mm-hmm. santé euh, et j'en passe éducation tey lan nga gis ni que loolu mooy loolu moo war nekk tey euh, priorité wala boog urgence bu nga xamante ni war nañ ci taxaw gouvernement bu bees ah fu mu toll ni euh, réew mi ñun nañu ko jële ci benn situation bu bu extraordinaire on peut dire même lépp urgence la soo xoolee euh, les actes que le président de la république l'ancien président Macky Sall a posé bu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu pété réew mi ba pare c'est-à-dire des nominations yoo xam ne nii kenn mënu koy expliquer euh, lu mel noonu aussi tamit au niveau des directions et au niveau lu existe la parce que si gars yi yàgg nañu ko def par exemple la Sonacos on a vu même le, le directeur général qui a fait des nominations après le la RTS ainsi de kon donc maintenant tout est urgent tout est urgent parce que tamit euh, réew mi ñu ko yor 12 euh, ans je pense aussi la situation bu ci bàyyi c'est une situation quand même qui est qui est qui est très inquiétante qui est très inquiétante pour ne pas dire que aussi affaire bi métti na on est dans la dans la ligne rouge mais il y a beaucoup de choses tout est prioritaire même les réalisations du gouvernement soo ko xoolee on parle leur bilan su ñu ko ñu fi nekkoon lu ñu lay wax on a on a réalisé des routes des ponts ainsi de suite il est bien mais le bilan matériel important mais le bilan matériel aussi dafa war a entrer en corrélation avec la situation de de vie de la mm. population ça veut que mënuñu lay defal ay pont ay tali ainsi de suite ainsi aussi pour mu pour mu am lu mu déplacé woo sax ça pose problème les problèmes d'embouteillage à Dakar c'est pas encore réglé mm. les problèmes d'accessibilité aussi à l'eau c'est pas encore réglé il y a beaucoup qui ont